tey ndaje mi liko ko moy ku ne xam na ne euh dafa am inondation yu ko yu ko yu ko dal rawatina nag commune biñu dekk muy commune mbou euh, ci initiative bu monsieur le directeur général bu ADM di président mouvement am dem muy Cheikh Issa mu woote woon pour ñu waxtaan xol nan lañuy fexé ba jappalé ki nga xam mom la yalla jiital ci biir dekk bi muy le maire Fallou Sylla ndax ba yëf yi commencé ba tay état du Sénégal mu ngi def effort yu am solo pour jële fi mbënd mi bu loolu weesoo fii ci commune Mbour moom monsieur le maire si la ak équipe bi mu àndal ñu ngi euh, fexe ñoom it euh, bay seen waar ci li nga xam ne mooy wàllum inondation ñu ne ñun en tant que ay responsable en tant que ay autorité fii ci au niveau de Mbour en tant que doomi Mbour ñu ànd ak Cheikh Issa Sall dajale suñu as euh, lu ñu am ak lu ñu amul pour ñëw taxaw ci wetu Fallou Sylla jàppale ko ci li nga xam ne moom mooy mbënd mi laal population Mbour ah di ko gërëm moom Fallou Sylla di ko sant bu baax ci dalal bi ci euh, disponibilité bi mais surtout ci li nga xam ne comme ni ma ko waxee sànq moom équipe municipale am jot nañ ko def pour jafe-jafe yi wàññeeku fii ci commune Mbour mais di jaajëfal di beral cant ak ngërëm ki nga xam ne moo am xalaat bu rafet muy le DG euh, directeur général ADM muy Cheikh Issa Sall di gërëm di sant aussi tous les responsables politiques yi ñu àndal mais les élus yi nga xam ne aussi ay kilifa la ñu ko ci mel ni honorable Kandi Sagna ak ki nga xamante ne moom mooy le président Thierno Mbengue ak la COJER la jeunesse de la mouvance présidentielle ak li nga xam ne moom mooy suñu coalition di Benno Bokk Yaakaar li ko Cheikh Issa waxee rek njabootu président Macky Sall moo seet ci kenn si njaboot gi te kooku yàlla def moo nekk ci bopp euh, fi nga xam ne mooy commune Mbour muy si la ñu ñëw ànd ak moom ci mbir mi nga xam ne moo laal population bi yëpp muy wàllum mbënn mi mm-hmm. di ko ñaan di ñaan yàlla yàlla na fi yàlla euh, dindi mbas mi dindi fi aussi li nga xamante ne mooy jafe-jafe yi am ci dëkk bi ndax président de la république ak gouvernement am bu ñu xëyee rek ñu ngi fexe nu askan bi mën a dund si jàmm ak salaam te lépp mën a euh, ant donc ñu ngi sant di gërëm bu baax a baax ñëpp di wax ne daal loolu moo ñu yëkkati woon tey ñëw dooleel sunu mag sunu kilifa muy Fallou la pour lii nga xam ne moo laal population bi. li may wax rek mooy euh, tey li ko monsieur le maire waxee ci ay kàddoom booy jaar ci euh, booy dugg ci kër da ngay jaar ca bunt ba parce que wax ji wax ji mooy monsieur le maire moom mooy euh, le premier magistrat de cette commune bi nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk muy commune Mbour li ci des nag amul solo xam nga li am solo hmm. mooy li ñu def tey hmm, hmm. li ñu def tey mooy ñëw ci wetu ki nga xamante ne moom la yàlla jiital ñu dajale suñu ay mbir ñëw jébbal ko ko mu jébbal ko population loolu la ñu def tey ndax loolu moo am solo euh, lii fi am tey sentiment de fierté la wax naa ko sànq

ku lim da ngay juum mais ñëpp ñëw nañu ñi war a ñëw ñëpp ñëw nañu ñëw ba woo conseil municipal bi ñëpp taxaw ñu ne lii ñoo ko dimbali sunu bopp dimbali la ko dimbalee ko waa Mbour toujours damay wax ni ku ko mën da ngay jàppale maire bi maire bi jàppale population te lii dama ko rafetlu ndax dañoo jaar fi ñu war a jaar ñëw nañu ci maire wax ko maire wax ko population bi ne leen lii kat ah njabootu président de la république ñoo ko fi indi te njaboot googu man ci laa bokk ah damay xamal ni nit ñi dañoo bëgg di gërëm aussi président de la république. li la santaane président li mu santaane ñun yëpp yëpp nañu dafa ne ànd leen bokk ndey ak ngeen liggéey loolu nag ñun ci la ñuy dox te gis naa ni yéen ci ngeen di dox ndax lii lii lu rafet la bu jën li lu ñu mën nag ñu koy def ci mbënd mi waaye tey jii bu ñu toogee ba ndox mi euh, ñëw xam ne léegi ñu bett ndax lu mat 10 moto pompe boo ko yoree. fu mu yëngatoo nga daw liggéey liggéey ko nag ak waa sapeur pompier ndax ñooy loolu mooy seen liggéey nga xam ne bu ñëwee ñu manque ndox mi génne lii la ñuy wax ni action concrète la lii lu rafet la lii lu baax la moo tax ñun dañoo toog di gërëm ah gërëmaat gërëmaat njabootu président de la république mi nga xam ne Issa bi tey moo jël initiative bi di ko ci gërëm di ko ci sant bu baax rafetlu nañu ko te bu soobee yàlla ñi ko war a yëg dinañ ko yëg ñi nga xam ne ñu ko war a jariñoo dinañ ko jariñoo